الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوك جوليدي بوك طالبين نيوغي نيوات تاي دي لين نيو واخ كين كوي ترو اكسانتام فاسيني رك واختاني سوخنا سو تيد سو باخ سو ماغ مي سوخنا جارو بوسا رضي الله عنها ما ميغا خامي تاي doyna seuk ci ndam mu nekk waajuru Seex Ahmad Bamba Xaadim Rasul mu bokk ci nag jigéen ñooñu suñu borom doon tagg ci alquraanu karim nga xam ne ku melakaanoo melakaanoo rek bokk nga ci ñooñu comme na ko yàlla waxe fa saalihaatu qaanitaatum xaafidaatun lil xaybi ma xafida allah mu bokk ci ñooñu ñi nga xam ne saalihaat la mooy soxna yiw yu nangoo jaamu yàlla seen borom ba pare di garder secret yi am seen biir seen diggante ak seen i borom kër te loolu am solo la xam ngeen ne jigéen ni ko lenn ci xokama yu waxe dañuy wax ne al maratu hiyal mujtama kulluhu dañuy wax ne jigéen mooy société société bu nekkoon di nit jigéen mooy jëmm ji société bu nekkoon jëmm ji mën a taxaw dañuy wax ne kon jigéen la waaye ñu ne kon jigéen jooju day xaaj société bi ñaari xaaj ñu ne almaratu nisful mujtama fa hiya talidu wa turabbi an nisf al moom mooy bu société bu doon ñaari xaaj la moom mooy benn xaaj bi waaye beneen xaaj bi des sax moom jigéen moo koy juraat te jigéen moo koy yaraat ba société bi mën a jekk moom la wax nekkoon kon société dafa mel ne ak gaal gu nekk ci océan bi Ah, jigéen mooy capitaine bi bu mënee dawal rek xam fan lay teg gaal gi ak nan la koy doxale ci biir ndox bi yàlla mën naa def ñëpp mën a mucc ba ak ji tefes ga kon ci tënk jigéen mooy lépp loolu yi nag la soxna jaare bu Jaara Buso radiyallahu anha su borom xamal ko ko baaxe ko ko mu tële jug ne bërëb fas kon defaru société bi nga xam ne mooy société Sénégal tey ndax lépp ci démb la lépp lu baaxoon démb rek mën naa continuer di baax ba saa di taxaw kon lépp lu baax tey Sénégal dañuy wax ne soxla Diarra Bousso radiyallahu am joué na ci rôle bu mag mag mag bu rëy rëy moo tax euh, tey jii adduna ñu ngi koy màggalal ñu ngi koy fàttaliku ngir lan jëfam yu baax yu sell yooyu nga xam ne jëfoon na ko ci kaw suuf ba euh, la ci njëkk mooy teel a bëgg lu baax. ku teel a bëgg lu baax la ku teel a xeeñtu yàlla borom yoon yalla sun borom da wax nañ ne bis ubbi na kaamil alxuraan karim fekk ci fa sun borom di wax ci alxuraan wa mina layli fatahajjad bihi nafilat laka asa an yab'ath rabbuka maqama mahmuda lolu yalla sun borom do wax yantu sallallahu alayhi wasallam sallam jaar wax nañ ne bim ubbe kamil alxuraan yam ci lolu ci la commencé mom di xiyamul leen di taxaw guddii ngir lan bëgg yàlla sun borom jox ko ci maqaam yu kaw te kenn wératul ne loolu mu bëggoon bu tax boo ubbee alxuraan kari yam ca aayoo ba tax mu ko doon wut di ko sakku maqaama yu kawe yu tey benn gën ca kawe si Ahmad Bamba Xaadim Rasul mi nga xam ne moom ko yàlla suñu borom tey baaxi tey te ñu ko àdduna bépp kon moom teeloon naa xam lan la fan la bëgg a dem ak fan la bëgg a teg tànkam ak lan la bëgg a indil société Sénégal waaye du ma wax société Sénégal waaye monde islamique ndax soxna jaar xëy na arab yi xamaguñ ko naar yi xamaguñ ko ndax ñoom daanaka li ñu ëpp seen histoire rek la ñuy bind waaye damay wax ne bu ñu ñëwoon ba Sénégal gëstu soxna su baax si nga xam ne mooy soxna jaar bi su rajo la am li ñu liggéey avant Serigne Touba di ñëw ak sa jii di Serigne fi mu yóbbu lislaam ak ni mu ko taarale ak ni ko rafetale kon yaakaar naa kenn du njëkk ci yi ñu taalif ci sayyidaat yi nga xam ne ñoo nekk ci lislaam kon jot na waa Sénégal xam li am xam euh, li nga xam ne moom la ñu soxna jaar andil te muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul mi nga xam ne. moo jagal société Sénégal waaye rafetal l'islam rafetal diine ci ndax moom kat boo ñëwee ci ay njàngaleem ñëw ci histoire am ñëw ci léppam ak ni mu taxawoo l'islam ak ni mu liggéeyal yoon sallallahu alayhi wasallam boo dee jullita te jullit kese nekk ci yow gëm yàlla kese nekk bëgg lu baax kese nekk ci yow da nga nangul Sëriñ Tuubaa te ku nangul Sëriñ Tuubaa da nga nangu soxla Jaara Buso radiyallahu anha kon damay wax ne jigéen ñi ah, am nañ ku ñu war a roy bu dee jigéeni Sénégal mu wax jigéen Sénégal waaye jigéen àdduna bi sax képp ku xam soxna jaara boo ko royee danga nekk exemple ca sa génération wala boo gox ba nga nekk kon ku yowaat liyaan da ngaa da ngaa da ngaa tëggaliwut ni ko olof Njaay di kon dooy jot na sëkk jigéeni Sénégal yi moo xam ay julli lañ wala du ay jullit ndax lu baax ñépp ko bokk ndax soxna jaara bi sax boo jilee rek turandooma Mariama Sayidna Sayidna Mariama bi nga xam ne moom lañ ko tuddee da ngay gis ne kon moom rek daa jëlaat sayidna mariama moom ay jikko yu sell yu mag yu rëy ni sëñ tuba tagge mariama moom yaay isa te muy turandoo soxna jaara Buso radiyallaahu anha fuz bi bi darfil xasanaat sayidatan lil muxsinaat mariama foqtil muqinaat inda alladi lam yudrak xasida googu sëñ tuba tagg soxna mariama yaayu yonent yàlla isa day gis ne mbooleem qualité yi sëñ tuba jox ya soxna soxna mariama yaay isa mi ngi ci soxna mariama waajuram muy soxna Jaara Buso radiyallaahu anha kon loolu lépp suñu coow bëgg cee jox exemple rek xam ne soxla si kat muy soxna Mariama Buso mi waajuram exemple la ni eh, naa Mariama yaay yonte yàlla Isaa nekk exemple ci jigéeni àdduna bépp